soxna xari penda radiallahu taala anhu mas yor ab ra'iya sëriñ Tuubaa xaadala wala maxtaroo laaj ko ku ko bind muniko ni fal domi Faal doomi Baay Demba sëriñ Tuubaa xaadala wala maxtaroo wax ni nañu ko jeli. kooku naaj waratu koo tim. mu ñëw sëriñ bi jox ko daay ñeenti bunt ni ko sab liggéey ci yaxal alxuraan laa la ko defloo kamil ba mu njëkk jox sëriñ bi dani ko bind nga ko nako sa sunu borom wacce kamil bi yiw wi ci sabaay am juróom ñaar fukki at ak juróom ñaar yam dund amu ci yiw ni tollu siiw na lii dañuy xamal màggug mind ak màggug liggéeyal sëriñ tuba xaadalahu la maxta lawo mel na ni bind alxuraan bu saxee dana dem ba nga xam ni moo gën a màgg jàng alxuraan daa mel ni jàng day yéeg bind nag day des ci yaram wi ak ci kaw si te fi loo bind képp ku ko jàng da am tuyaaba ci jàng gi mu ko jàng wallahu alam